Lamine Ndiaye. bi moo doon gaaraasam. waaw bi moo doon waaw. moom nan la xanaa def lu baax ak wax lu baax ak yërëm ñu ak bëgg suñ Touba trop nag moom lépp loo ko mën di wax te woo ko suñ Touba woo ko dara màggal bu ma saan a jot oto boo ko mën di jox ci àdduna da koy gaar dem Touba moom man loolu moom xam naa ko ci moom moom. xanaa métti ñu trop nag métti ñu lool nag. miti ñu torop ñu miti lu ko lool nag ndax suñu xarit la woon mosu fi am ak kenn benn problème du xeex du xuloo ba siiru fay ah, liñ ciy wax daal mooy grand bu baax bu bu doon Baye Fall bu gëmum waa kër maam Seera Fall ak sëñ Touba ndax euh, yàlla dogal na ni bi mu nekkee ak ñun fii ak léegi nii musuñu ko fee àtte si xeex musuñu ko fee àtte si xuloo lu baax la fi wax lu baax la fi def suba teel gi daanaka loo xëy teel a xëy teel a xëy di nga ko fekk doo dikkee yaa ngi koy fekk mu yor xasidaam du paree si xasida bi li muy njëkk def mooy dem jëndi soloyam toog si otoom di liir bañ ñu ko yaa war a yeb wala dara lu mooy loolu daal lool lañ ko mën a seedeel si li nga li nga xam si moom bi ñu ko yëgee tamit ñëpp a ko naqarlu ndax xam naa ni duñ ñu ñoo ko gën a am naqar ay mbokkam ndax lu bokk ak nit dara dal si kawam dooni yéen ëpp naqar ay mbokkam waaye xam naa naqar wu ci mbokkam am rek ñu nit am nañ naqar wu toll noonu ndax li waral loolu mooy ñun la nekkaloon di guddeendoo ak ñun di bëccëgoondoo ak ñun ñu bokk waar wi te dara musu cee ñaaw tamit wax dëgg yàlla. non waxuñu garage bi kese waaye taxawaayam fépp fu mu mënoon di taxaw doo fa demee seede si lañ lay seedeel si moom nangu naa liggéey jàpp na njàmburam am na ak ñëpp jàmm ndax fii la doon fréquenté ak euh, hôpitalu dixième waaye tey jii nii doonut kenn koo xamante si xamoon nga Cheikh mbay dégg lii ko dal te doonut lu la naqari ndax ñun avant ay mbokkam di jug ñun jug nañ def ci lu ne pour xam si fan la nekk. di ko ñaanal nii nga xamante si ni la ay mbiram siiwee. yàlla na ko ni yàlla siiwale sa àjjanay firdawsi defal koy xéewal yi sax dàq njaboot gi mu fi bàyyi tamit yàlla na ko ci suñu borom tegal loxo ba ñu man koy yeggaleel yéene yi mu fi naaloon bàyyi ko fi. Talapen taximan Thiès grand Cheikh Mbaye mii li may wax li li nga xay ne moo lay wax rek lépp lépp lépp ba Basirou fay mi génn léegi wax na ko xanaa dañuy waxaat rek xam naa ni yàlla xam na ko yonent bi da wax dëgg yàlla moom sama waay la waaye ñëpp la waaye bu gën a doon waay. ba jamono yi passé bi na bëgg um koor am na lu mu daan programme ne woon na ma bés bu ñu koy def bëgg naa nga teew ci ma ne ko na nga wax Moustapha muy Moustapha mii moom jege na ko trop yàlla dogalu ko bi nu umee koor ba am quelques jours ajjuma la bis na tey lañu mujjee gisante Cheikh Mbaye fii ak ngoon jul jul na baar ba pare ta ci takkusaan ñu toog fi di waxtaan boobu lañu mujjee gis Cheikh Mbaye ba nii ci yàlla dogalee nii mboolem ku nekk fii nag moo wax dem taximaan kenn ku nekk yaa ngi jël sam xel ak sa xalaat pour bëgg nu Cheikh Mbaye feeñe parce que boobu affaire bi lëndëm nañu tout tiis nañu trop mboolem ku taximaan nag waxuma ñëpp nag laa wax ci cees affaire bi tiis na la lool mbir mi nga def ko def ko sa mbirum bopp ndax naqarul ma naqari ba depuis keroog bi ñuy yàlla def na feeñ na muy lëndi wallahi al asim la man xol boo ci gis laa lay ne ma nga fees del ak rangooñ ñi mën a jooy jooy ñu ngi jooy rangooñ si rangooñ ci génn ñi nga xam ne mi ngi jooy ñu ngi jooy jooy xol ba ci mën mi di wax ak yow gulee tey laa mos a téye micro barke alxuraan nga Cheikh Mbaye moo ma ko jaral musu fee am kenn xarma yàlla amut musu fee xuloo kenn musu fee xeexa kenn garas bi ak garas benn mu doon ci yemale toog toog ci otoom jàpp a njàmburam moom la xam ci seex mbay te liñ koy ñaanal nag yan na fa mu tëdd gën ko fi mu jóge ci daraje seydinaa Mohamed njaboot gi mu fi bàyyi yan na teg loxoom dem na ci deminu métti nag waaye nag dañ koo boom tey li ñu xam ne li alxuraan wax ci boom xëy na ngi am ci moom yaakaar yan na ko yàlla yonde bex Ibrahima Fall teeru ca àjjana Baye Fall la woon piir bu baax bu yaru bu tabe si xëy ma kii xëy ma soxla kenn lépp lu ñuy laaj fii bu nee seex mbay Cheikh mbay moo jëkk joxe mustafaa ngi nii doy na ma seede te li may wax nii la yàgg yàgg naa lool sama loxoom di yor dara àdduna jëlu ma may wax loolu lu su néew noonu waaw man nag wax dëgg yàlla damaa mënut wax gule tey jii ma jël micro di wax waaw loolu daal lañ xam ci Cheikh Mbaye ak mbooleem ñi ne fii ñu wax dëgg yàlla macha allah baat benn dong la li ma wax moom la kee di wax moom la keneen di wax xanaa yéen ñi da a baax rek ndax bu leen neexoon ngeen toog fa ngeen toog du ngeen ñëw waaye dawal seen oto ñëw fii nii da ngeen a bëgg ngeen témoin ci Cheikh Mbaye loolu wax dëgg yàlla loolu rafetlu la loolu rafetlu la wax dëgg yàlla yàlla na saa borom yàggal wéral cër yi waaw seen tele bi nag yàlla na ko saa borom def ay télé télé ci daraja Seydina Mohamed jërëjëf ci yowmal jumaa ji ñu nekk nag man Abdoulaye Ndiaye laa tudd lan nga fii man de chauffeur laa Dakar laa ne woon nag di liggéey léegi fii laa garage bi mag sama yi waaw. sa diggante waa xam ne moo moom sama xarit la man ñoo nekk fii di ko jàppale ni ku baax la nag wax dëgg yàlla li ma xam si moom de jullite ak nangoo liggéey ak nangoo jàmm suñu borom waaw amul benn problème nag wax dëgg yàlla fii ci garage xanaa mu ànd ak nit ñi jàmm ak salaam ak nangoo liggéey waaw ak góorgóorlu nag. loolu daal laa xam ci moom. mbir mi bu ngeen ko yëgee la leen ah, nañ trop moom man nag dama ko ñaanal yàlla na yàlla seral yax yi yàlla ko yàlla xaraa jëne si dara jóonante bi. ban umee ko daal bu am fan boobu la fi gëj waaw ko ñaanal daal mooy yalla na ko yàlla yërëm xaaru ko àjjana waaw yërëm mboolem jullit nag waa garage bi nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant yow sonn nañ ci trop war nañ ko ba sonn.